da ngay dem police nga uti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow doomu réew mi voté lu la war te ngir voté da nga sa carte électeur yoo xam ne c'est voilà 111 111 111 111 111 voilà voilà voilà mes layam layame ne Sonko wax wala waxul Sonko joxe ndigal wala joxewul ndigal Sonko rek la ñuy topp Sonko rek la ñuy déglu bu Sonko joxoñee fu Sonko joxoñ fa la ñuy topp sonko joxoñ na sonko ndigal na ndigal li wàcc na sonko décidé na wax na ak ñun wax na ak yeneen candidats yi aussi pour ngeen xam ne sonko xeebul ken waaye décision bi mu jël nee na du décision xol maanaam xoolul ne kii moo neex wala kële laa bëgg wala kii moo ëpp xam-xam dafa ne dafa jël décision bu cohérent décision boo xam ne daf du indi benn par parloo décision xam nga nag bu ñu nekkee ci ay groupe doomu aadama yi da groupe dafa am nu mu laloo dafay am numéro un dafay am numéro deux dafay am numéro trois lan moo tax ñu leen di tànnee noonu c'est pour en cas numéro un bu gàllankooree numéro deux ñëw numéro deux bu gàllankooree numéro trois ñëw donc Sonko waxatina ak sénégalais yi man nag damay farampàcc pàcc rek li nga xam ne moom la wax waaye la mu wax ba léegi mi ngi ci page ku ko bëgg a déglu man ngaa dem ci page usmaan Sonko officiel ngeen dem déglu ko lii du ay waxu usmaan Tunkara du ay waxu parparloo du ay waxu Issa Diène du ay waxu parparloo du ay waxu Ngagne Demba Touré du ay waxu parparloo du ay waxu El du ay waxu parparloo du ay waxu Amadou Ba du ay waxu parparloo du ay waxu Biram Souley Diop du ay waxu parparloo waxu kilifa gi nga xam ne moom moo jiite Pastef te ñu naan ko Ousmane Sonko mu sell mi moom moo wàccee ndigal tey dimanche ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier nee na Bassirou Diomaye Faye la tànn Ousmane Sonko nee na waa ji la tànn ndax boo leen gisee ñun bi ñuy defar yii booba deglooguñu sax li Ousmane Sonko wax ndax wax dëgg yàlla xam ngeen ne t-shirt bi defaruma ko diggante waxu Ousmane Sonko bi ak par discours bi t-shirt bi defar naa ko parce que comme ni mu ko waxee c'était le choix cohérent candidat yi nag bari nañ ci senegal bari nañu am na ñu bari ñoo xam ne ay candidat wu Macky Sall lañ am ñu bari ñoo xam ne Macky Sall daf leen tànn ba pale rëccu démb rek doomu siif boobu ngeen xam muy Cheikh Yérim dàq duul ci Sénégal ñëwaat na yónniwaat nañ ko waay Ousmane Sonko tontu na ci loolu nee na bu ñu tànnee candidat di ngeen gis ay nit yu génn di jéebaane candidat bi di ko xas di ko duulal di ko fenal waaye li ma bëgg ngeen xam mooy Ousmane Sonko nee na Basiru Jomaay Fay Basiru Jomaay Fay la tànn pour mu désigner pour mu doon candidat 2024 à la présidence de la République muy candidat Euh, ka nga xam ne moom mooy ex Pastef parce que bëgguñu benn doomu aadama buy mer donc Diomaye 2024 Bassirou Diomaye Faye la Ousmane Sonko tànn Bassirou Diomaye Faye la Ousmane Sonko tànn gars yi nag dama leen di lancer ay défi nos chanteurs nos rappeurs commencé leen ma defaral ay clipu Diomaye 2024 commencé leen ma defal ay musique campagne ku musique am moom la ñuy tànn pour campagne bi incha allahu rabbi koo xam ne moom la Ousmane Sonko tànn muy Basiru Jomaay Fay ñun ñëpp moom la woteel moom la ñuy àndal bu kenn dugal beneen ndoxu potit ci sa biir bopp gaay Ousmane Sonko nee na Bassirou Diomaye Faye la tànn tànneef bi nag mooy tànneefu cohérence mooy tànneef bu ànd ak maanaam li nga xam ne moom na parti bi di doxee defu ko tànneefu ne Bassirou Diomaye fay moo gën a muus Sénégal yëpp wala moo gën a baax Sénégal yëpp ndax suñu yeneen candidat yëpp baax nañu ñoom Cheikh Tidiane Dieye ñoom euh, euh, Déthié Fall yeneen ak yeneen candidat opposition bi bari nañu waaye Ousmane Sonko nee na basiru Diomaye fay la tànn la nga xam ne tey moom moo nekk suñu ñun suñu priorité mooy fal candidat bi nga xam ne moom la ñu tànn au premier tour dinaa leen woon doomeeraam ji nga xam ne moom la marem euh, euh, doomeeraam la nag ndax moom baayam mooy ndeyam ak baayam ñoo bokk baay dafa jël nag envelopp moom saa bu jógee rek dañuy def li tudd émission commandée dañuy commandé ab émission ñu jox ko xaalis mu dem ci émission ba jéem a nelawal xelu sénégalais yi dinaa leen wax li mu def démb ni mu tudd Yérim li mu def démb ñu koy ko ñu ngi ko tuddee ingénieur yi maanaam ñi def political science ñu ngi ko tuddee predictive programming maanaam programme def prédiction technique la boo xam ne c'est utilisé par les mas maçonniques jaay ñu ay idées yu faux des fausses idées pour ñu mën leen dugal ci suñu biir bopp yi changer suñu ay attitude pour ñu mën a accepter li nga xam ne éventuellement mën naa nekk ñoom dañuy inventer ay fen bëgg yow nga gëm fen yooyu bëgg yow fen yooyu nga instauré ko sa biir xel bi nga mën koo d'accord maanaam fen bi bis bu amee nga mën a ne ah lii mënoon naa am loolu la Yérim Seck defaat démb ak may Maïmouna Ndour Faye ñaari doom yaram lañu yoo xam ne les plus grands mercenaires boo leen fàttale ko bi Ousmane Sonko génnee livre mercenaire bi ba léegi ñaari doomu xaraam yu toj seen nangamtaanu nangamtaanu nangamtaanu ndey yi ñoom ñoo fi génnoon di ko jéebaane di ko tuddee salafis ba léegi ñu ngi ci seen ligne droite boobu Yérim Seck la ba léegi ak Maïmouna nduur du tey lañ ko tàmbali te duñ ko arrêté ndax c'est des mercenaires c'est des francs ay doomi araam lañu yoo xam ne dara jaa jéemu jéemu dara dara jombu leen cagala boo xam ne dafa am jëkkër am ay faram di tëddee sax ci candidat présidentiel yi am na ci far kale moom baayam siifkat la moom siifkat la doomam siifkat la maanaam doom la boo xam ne dafa judd ci inceste inceste mooy lan mooy mag ak rakk ñu séq lu bon ba jur ci ak doom tubaab yi dañu ne la plupart des temps kooku day am pathologie waaye xam ngeen Yérim lan mooy pathologie moom ndoxu koko ndoxu duul moo nekk ci biir bopp bi bis bu ne mu génne duul bu bees te benn duul nag du ci bokk ak sa morom te dara jomb ko moom mën naa ne tey asamaan si dafa weex bu subaa mu ñëwaat mu ne la même asamaan si tey dafa xonk te asamaan saa ngi weex tàll àdduna bi yëpp di ko xool Nini Diallo nee na Tunkara bul saaga waay billaay wallaay bëgguma saaga sama xol a jeex ndax lan mooy tax saagaloo doomu aadama lan moo tax saaga am mooy xol bu jeex mooy indi saaga ndax ñàkk jom paasewul Cheikh Yérim sekk adduna bi yëpp xam ko mu judd ci judd yi ni mu gën a ñaawee ci judd ndax moom baayam ak ndeyam ñoo bokk benn baay moom mu ñëw mu lëmbe senegal nag ne damay ñëw yàq senegal donc loolu moo taxoon ma ne ma indil leen lii pour indil leen ay leeral ci doomu takkoog malaado boobu ak pexeem yu bon ma déglu loo leen nag ay waxu démbam ak ay waxu te eh, teyam après ma ñëw continuer ci mu sell mi déglu leen. benn candidat taxaw mobiliser force Pastef yëpp mën déglu leen déglu leen déglu leen Cheikh Yérim doomeeraam ji dama bëgg Sénégal yépp ngeen déglu ko déglu leen. benn bu taxaw mobiliser force Pastef yépp mën na gagner au premier amul benn sondage Sénégal configuration politique fii bu Pastef am plus de pour cent. voilà jeex na léegi na gars yi pare nañu ci dof boobu. dama bëgg ma ñëwaat ci sénégalais yi rek ma ne leen nañu concentré wu totalement sur Bassirou Diomaye fay kii la Ousmane Sonko tànn nee na bépp sénégalais nee na bépp partisan nee na bépp nit bu gëm projet bi doomu aadama bii la bëgg nga sànnil sa carte la nuit du vingt cinq février deux mille vingt quatre Bassirou Diomaye Faye mii nee na ko do nee na doy na ko ci bépp fànn nee na moo ko gën a jub nee na Sonko nee na Basiru Jomaay Fay moo ko gën a jub moom nee na mi ngi xamoon Basiru Jomaay Fay environ 2007 2008 waaye musul xam nit bu ko gën a jub nee na Basiru Jomaay mii moom moo tax Basiru Jomaay dem prison ndax Basiru Jomaay dëgg la doon wax jëmale ko ci yenn magistrat yu corrompu yi looloo waral ñu jël ko tey dugal ko prison waaye nee na moom Ousmane Sonko xamoon na ne moom amaana bandi yi dinañu gàllankoor candidature am loolu la Badio Camara def loolu ngeen gis tappale bii nga xam ne waa PDS ak waa APR ak ñoomin seen ñu ko koy jéem a manœuvrer fan yi assemblée nationale ñu naan yaayoo nee nañu dañuy jéem a jéebaane juge yi gën a baax ci Sénégal ñi gën a jub ñi gën a set comme Cheikh Tidiane Koulibaly ak ñeneen nee nañu ñooñu Amadou Ba moo leen corompre muy ay fen yu tooy xepp ndax ñi corrompre ci Sénégal ñun ñëpp xam nañu leen te ñu bëgg sénégalais yi bàyyiwaat leen xel te ñu bëgg sénégalais yi xam ne le président Ousmane Sonko c'est l'homme idéal dañuy woowaat doomu sénégalais yi ne dem leen jëli seeni ay carte d'identité déglu leen encore ñu ne dem leen jëli seeni ay carte d'identité ngeen daas fanaanal te yéen sénégalais yépp ngeen xam ne amul benn pexe bu war a mën a tax Macky Sall ak bandiyam yi di jéem a puus ay élection wala di ko paas yéen sénégalais yi aussi ma ne leen ci diaboliser wala xeex opposant yi bu ma nee opposant nag opposant laa wax ndax usmaan Sonko nee na leen dina am ay doomu aadama yoo xam ne dinañ leen soxla ñu ànd ak ñoom donc bàyyi leen jéebaane ñi nga xam ne amu leen benn preuve jusqu'à l'extinction du soleil qu'ils sont corrompus et na ne sont des opposants bari nañu corrompre ci opposition bi bari nañu baaxul mais am na ci ñoo xam ne nee na ñu bàyyi leen xel ndax suñu ay alliés lañu duñu suñu ay opposants duñu suñu ay ennemis ndax Sénégal lañu bëgg a jël te senegal pour jël ko il faut ñu boole ci sénégalais yépp te loolu dafay waral ñu jël parparloo bi tegee ko boor gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di yemal waxtaan bi fii di leen bàyyi yéen sénégalais yi aussi ngeen apprécier li président Ousmane Sonko wax bu amee dara loo xam ne fàtte nañ ko wala ñu war ko cee yokkaat dinañu ñëwaat ci kanam tuuti incha allahu rabbi ñu def ko balaa loolu nag wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.